Ousmane Sonko nga bëgg ma saaga Ousmane Sonko nga bëgg ma ma ma attaqué ko pour que nga am ñu lay dimbale yow maa la gën a muus mën naa la jaay lekk sa njëg taxaw Ousmane parce que man sénégalaise la pure man judduwuma jéeri jógee ci àll ba ñëw di buuxante pour bokk Sénégal Fatoumata Danso taxatoom doo ma tax a Sonko c'est ce que tu Sonko comme ça ñu bëgg Ousmane Sonko ànd ak yow may la doole. nit ñooñu doow nitu Ousmane Sonko yi man la ñu gën a jege ko yow yow mi doog a ñëw Sénégal sa wolof setul xamoo culture Sénégal bëggoo Ousmane Sonko soo bëggee Ousmane Sonko doo def nga xëy tey di saaga ñëpp ñi nga xam ne ci opposition bi lañ nekk pour que ñu ànd ak di saaga Ousmane Sonko yow nga am ñu lay jàppale. regarde-moi cette façon d'être mercantile cette façon d'être imbécile cette façon d'être égoïste yow Ousmane Sonko ngay jeter toujours en pâture pour que ñu saaga ko nitu Ousmane Sonko ñëw la ci yow ne ah gis nga et muusoo yow da muusul Ousmane Sonko Cees la juddu comme man Ousmane Sonko li ma bokk ak li Sonko bokkoo koog moom parce que yow sa day Ousmane Sonko sénégalais la Casamance la dëkk yow dëkkoo Casamance. Dr Pepper uh, what, what you want baby one Dr Pepper and one wait you know Coke Coke Dr whatever Sprite or what you want Sprite one Sprite one Dr Pepper thank you yes <laughs> here your food mani doo tax ma saaga Ousmane Sonko dootoo tax ma attaqué Ousmane Sonko parce que nous avons compris ton jeu da ngay ñëw attaqué waa opposition surtout nitu Idrissa Seck wala nga attaqué ma pour que ma ñëw di attaqué Ousmane Sonko Ousmane Sonko boobu nga bëgg ñu attaqué ko nga utiliser ko comme ni nga ma utiliser comme ni nga utiliser ma utiliser Maria Seck comme ni nga utiliser euh, ñëpp ñi nekkoon ak man pour que here yow drink bi Euh, pour que que tu te construises yow hey teg jege woo jegewoo jegewoo luy bokk ak histoire u Sénégal xamoo histoire u Sénégal xamoo culture u Sénégal damay dem sama kër wàccee sama doom yi wàcc ma toog wax ak yow wax ak Sénégalais yi te yow du yow du yow yaa tax may wax danger bi nga nekk pour Sénégal moo tax man ma bàyyi sama liggéey fi mu ne nii damay ñàkk sama xaalis yow ñàkkoo xaalis boo demee raxas taatu màggetu tubaab yi ba pare ba xasaw sa xasa xam nga xasawu màgget xasawu puubu màgget da lay topp dafa dem ba sa kanam bi sax dafa mel ni kanam mu fas boo xoolee sa bopp mbala béy gis nga ba ma jëlee sa photo dajale koog béy bi dafa mel ni foto photocopie béy laa def parce que nitu àll nga dangaa tàmm nekk ci ak béy yeeg mbaam yeeg fas yi ba yow say attitude attitude fas ak mbaam la nee naa la mberkel Sénégal bokkoo suñu xeet sénégalaise bi ma li may wax ni li la xam nga lan la sama live yi may wax ni maa ngi jox maa ngi hommage maa ngi def hommage sénégalaise pure yi waaw maa tey doo sénégalaise santiruma la maa la santirul te maa wax ni yow dootoo taxati ma bul sonno ñi ngay manipuler man maa la mën a jaay lekk sa njëg toog ñuy wax dof bi naan ay kaay ma jàngal la politique yow li ma mën ci politique moo tax yow nga tey nga am espace booy toog bay toppandoo li ma doon def yow da ngay toppandoo li ma doon def donc mënoo ma jàngal man may sa bàyyi man ak Assane Diouf ku fii live ñooy say bàyyi ñoo leen engendré ñoo ci soxlawutul dara yow doomee ram bi nga doon yàq nga deru Casamance Casamance boo gis dafay diñ na det Badji ma sœur maa ngi lay ziyaare est de la mauvaise herbe qui est venue se mêler dans le champ, dans les pâturages du Sénégal. Ousmane Sonko Doful, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui est sorti de l'ENAM. C'est un fonctionnaire hiérarchie A1 qui a au moins un bac plus 4. Il n'a pas besoin de toi pour savoir que clé USB, ay clé, pour nous donner Sénégal. Mais tu es bête. te foo waxee gën a étaler ta bêtise foo waxee gën a étaler ta cupidité foo waxee daal di étaler toutes tes intentions wóoroo nga jox xa Abdou euh, Abdou Karim Gueye te nga bokk moom ki ngeen gëm nga taxaw fi di ko étaler te man mi bokkul ak moom ki ma gëm man mi nekkul xaritam man mi mu attaqué joxe naa loolu mët ko dix fois yow li nga joxe te waxuñu ñun waxuñu ko baadoo la pour te dire point boobu rek wane na combien tu es mauvaise Abdou Karim Gueye bu taxawoon di ma saaga. bu ma taxawoon di saaga man fi mu mu génn nekkoon génn ak jàmm fi mu nekk di ma saaga du ma a taxaw nekkoo ko ba nga nekkee ci situation génne naa li jox la parce que jomb naa ko ñun xamuñu loolu ñun sénégalais man li ma ko li li li jubanti participer ko mës wax mais yow tu une âne mbaam nga rax nga golo rax nga mbe xawma animal bu sauvage bu nekk ci Sénégal rek rax nga ko yow yow dama xamul ki la jur lan la yow ku lay jow mooy ban xeetu nit ba mu jow mbaam bu mel ni yow Sonko génneel Sonko sa gémmiñ parce que Sonko c'est quelqu'un quand même qui a du mérite c'est quelqu'un qui était dans ce combat avant que toi tu ramènes tes grosses fesses dont tu te vantes qui n'a rien à cirer mais yow ay taat nit ñu faale ay taat sénégalais yi lijjante say taat sénégalais yi soxla ni yow boo fase woo dof dof la tubaab boobu bàyyi la di nga lamb sénégalais du la takk sénégalais cent pour du la takk maa la wax lii maa ko wax assumer ko maa ko assumer en plein jour yow doo ku ji sénégalaise di takk sénégalais di takk ku ndeyam di dund mbala ay mbokkam di dund sénégalais du la mës a takk bi yow sa paaw tubaab boobu nga jàpp ci ngoy ci c'est pas tubaab boobu bu la rëccee di nga xam ne ni nga amee woon problème am jëkkër Sénégal noonu ngay amaatee problème am Séné jëkkër Sénégal du ay view Facebook mooy tax nga am jëkkër Sénégal parce que doo ko Sénégal yi di bëgg dijj nga dijj nga Sénégal dafa bëgg lu fin Sénégal dafa bëgg lu am yiw Sénégal dafa am lu am lu am raffinement yow raffinement zéro finesse zéro classe zéro tu nee naa la yow da nga cest dire que nu waraloo ma sax nit ressemble plus à benn animal animal ngay nuróol daal maintenant mélange animal la tu es un mélange d'animaux man mënuma déterminer clairement yan animaux ñoo ñoo euh, la ñuy mélanger pour jox mixture bi nga nekk parce que nekkoo sénégalaise jegewoo sax nit nitewoo sax et puis li ma gën a métti ci yow mooy tu prends Sonko nga koy jéem a jeter en pâture di jël Sonko di ko sànni pour que waa opposition bi taxaw di saaga Sonko di saaga Sonko comme ça yow nga mën a légitimer benn sa présence au sein de PASTEF